lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor. salaamaaleykum wa rahmatulah c'est Omar Cissé alias. Kenzo artiste jeune rappeur Saloum commune bu ñuy wax Nganda région bu Kaffrine waaw di rafetlu rek ah maîtresse parce que c'est très c'est très important quoi série bu doy waar la série bu doy waar tey dama ci inspiré lu garaaw kaaw Jalika bi muy bi muy bi muy tàggoo man li ma jooyloo mooy wallahi azim dama jooy dama jooy ba sonn wallahi azim maîtresse li gën a doy waar épisode ba cinquante seetaan naa ko te seetaanu ma ko télé youtube rek du ma ko yàkkamte damay jël sama temps sama gaale dafa am wifi maa ngi koy gërëmee sama papa mais chaque épisode lu ma satiré satiré damay jël sama temps seetaan ko après amul épisode bu ma seetaanul mais épisode démb bi dafa doy waar li tax man dafa doy mooy am na ay jàngat yu bëri yu ci am nit ñi tiire nañ ci ay leçons yu doy mais man damay xaw a xaw a euh, du mun naa ko tuddee xaw a bañ a nangu mooy si côté Jalika bi muy décider euh, bi muy tàggoo quoi day xam nga day dee ko moom loolu la jàpp parce que cancer moo ko arrivé wala ayaasu billah yal nañ ci yàlla musal waaw musal ci képp ku déglu message bi man pour man Jalika lu mu souffrir yëpp waruloo nu mujjee foofu noonu quoi décédé exemple waroon na jot bonheuram ci àdduna parce que yàlla li muy li ñuy wax ne am na ñum xañ galaas waaye defal na leen mbànd li saalum saalum di wax mbànd mbànd naanukaay la amaana saalum saalum dinañ ko xam ñi yàlla xañ glace yàlla defal jox na leen mbànd te mbànd yooyu day sedd comme glace ñi ko xam xam nañ li may wax quoi kon délicaté waru loonu mujjee si dese bi beneen côté bu ma ci tirer leçon li ma jooyloo mooy la fait que Jalika di tàggu ay doomam di bàttale ay doomam mu leer ko ne day dee man si dee boobu laay taxaw quoi man moo ma jooyloo si lan Jalika dafa war a décédé dem fan àllaaxira may imaginer ne àllaaxira boobu noonu kan moo fa nekk bu dee jullit xàqan nga Seydina Muhammad alayhi salaam loolu loolu moo ma jooy la franchement parce que dama jeex si rasulillah alayhi salaam def naa ci moom ñaari saawoon dinaa la ko yónnee incha allah yónnee moo la ko ngir ko xam ma non ngir nga xam ma non dara ni ni mu demee la rek ma xalaat nii yenentu boobu noonu tey kum leer ni dangay ngay dee si sa sukkuraat yàlla yéex nga koy imaginer da leer ne kooku mu ngi lay xaar imaginer bi nga koy imaginer noonu di ko di ko imaginer di ko jeneer yaa ngi dégg di ko jeneer mu ngi mel ni soxna Moussa ba damay fàtte teewlootuma turam <laughs> bi muy sukkuraat ñu won ko yonent bi alayhi salaam sa aras ne ko kee mooy si soxna ni mu koy xoolee di reetaan noonu bu yëgul dee bi nekk ñoom rey nañ ko te yëgul ko donc may imaginer loolu noonu si kaaw Jalika bi mu leer ma ni lii nii ala kulli xaal Kenzo dina si jaar ala kulli xaal ku gëm yonent bi dina si jaar ku gëmul dina si jaar te yonent bi nekk nekk sunu xéewal nekk sunu xéewal adduna ak àllaaxira tey nga am cofeel si moom nga dem ba dee war a ñëw nga koy imaginer loolu daf ma jooy la ba daf ma inspiré si benn texte boo xamante ni ci àdduna non série bi dafa garaaw beneen côté bi mooy la jooyam yi mu doon jooy ndeysaan man li ma ko jàngatee mooy jooyu regretté ak jooyu yërmande si kaw mayreem lim xamal mayreem après ni mu demee am na ndam ci kaw mayreem waaye yërëm na ko te regretté na ndax gor bu ne gor la des fois li li li lës diwaan ji di wax ne des fois góor dina jooy te buñ xam xam nu mu ko waxee si sawnam boobu aari indi moone bi loolu laa gis si jooyu làll bi quoi examen mais en tout cas ñaari cas yooyu tey mooma jooyloo quoi làll bi ñuy génne Marème en plus ni ko gars yi génnee dafa doy waar dafa doy waar ñu ko gars yi génnee dafa doy te am na si société si société bi am na man société à Gambie maa ngi fii ni Gambie yaa ngi dégg mais fii gis naa benn jigéen démb dafa jooy bi bëgg de benn xale bu jigéen série bi dafa triste dafa doy waar mais en tout cas Jalika Jalika moom franchement bëgg naa ko xam quoi te yàlla tax man femme boobu dafa sadik quoi dafa dafa aay kaar kaar su ku mën ku mën jouer la france franchement waxuma ngir tàgg ko mais li li ma gis mu jouer rek laay wax quoi yeah mais nice quoi en tout cas lu xew TV tamit nice respect fa you Fra. cest à déglu ma sax sa commentaire bi bu yegg <coughs> fi ngay waxee ne lan la franchement wujjee jaruloon mu yàqu dara doomu aadama <coughs> loolu jigéen lii jukkoom la maanaam ñoom bu ñu wujjeeg yow. buñ demee ba toroxal la hmm, ba torox ba torox bi dem ba métti leen parce que dañuy dem ba li wax nit ki di nga ko yéene lu ñaaw mu dem ba arrivé ko nga fas regretté di ko yéene waat kii quoi li naan dëmb rey la jaale la Lalla tey foofu la toll quoi dafa dem ba regretté quoi instant ma c'est-à-dire lépp lépp après day delluwaat si doole iblis quoi par exemple euh, bi alxuraan. di di ñu nettali euh, xëccoo yàlla ak iblis si missaal parce que loolu lañ ko mën a waxee yàlla buy wax ak iblis iblis du wax yenu ni yàlla wax yenu nii loolu yàlla la neex mais bi iblis ne euh, fa bi ma axwaytanii la aqudanna lahum siratikal mustaqim bi iblis ne yàlla dinaa lal sama basan wala sijaada wala sama der ci sama si sa yoon euh, si yoonu si njub waaw bi sa jaam ñu war a jaar loo mën si faqasal leen yàlla ne ko inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan maa ngi samay dëgg dëgg jaam yi nga xamante mu mënoo si ñoom dara isan ma gars yi foofu la ñuy toll maanaam iblis doole li li ëllu tasawuf nangu ne iblis day daw si deretu doomu aadama ni yàpp ak ni ni ni deret di dawe si yaram noonu la iblis di def si doomu adama si yaramam yàlla daf ko fay li ñuy wax ne yàlla daf ko daf ko booleel fayam góor ak jigéen yooyu yëpp ah, ay jëfu iblis la dooley iblis la rek dooley iblis moo tollu foofu noonu maanaam ñaawteef boo ci nekkee da ngay am doole ba nga xamante ni day ëpp léegi yoon après boo defee Lucifer ba pare da ngay moo rek yenn yi nga regretté parce que lii nii jigéen ñu bari dañ koy dund dañuy dañuy comme li nga wax wujjee jaru ko mais tey ku nekk xeex lay doon quoi mu mel ni ku nekk ci jihaad yow sa adversaire doo bëgg lu dul éliminer ko donte da ngay éliminer da koy éliminer après nga regretter sax éliminer bi nga ko def mais yow na ko éliminer laal la foofu la tollu tey déception bi mu yéene woon femme bi dem na ba am ko quoi dem na ba am ko à la fin nag euh, mu xaw a stress si torox tànge bi dal mareem ci missaal ci film bi donc si loolu la dem ba am ci euh, naqar quoi donc loolu moo ko jooyla pour man mais c'est trop parce que jaru ko jaru ko woon franchement te lii ni cas yi dafa bari mel ni ki sotti wu jëm euh, xawma diwlin ba pare nga di yuuxu way torox naa way lii fekk na c'est trop tard donc kaaw Marème bi kaaw Jalika bi li ma ci wax tamit mooy pour man Jalika li mu souffrir la waroon a mujjee tey ñàkk bakkanam nii si neen esama parce que euh, ñun côté charia dañ ñu ko jàngal quoi ku muñ di nga muñ kon Jalika tey si fin finu série bi daa waroon a muñ mais souffrir ba xëy dee gaa am na quoi gaa am na quoi franchement am na mais tey war nañoo bàyyi au moins doomam nekk ci tey si bonheuram si fin bi wala moom mu nekk si bonheuram mais pas ñu bàyyi ko mu dee ci souffrir gain am na nag gaa ni ñu ko joué noonu am na mais parce que li tax ma insister ci bëri na si ñoo xamante ni si loolu la ñoon critique Jalika ni mu ni mu ni mu demee nii daf leen daf leen daf leen naqari quoi bu ñu sañoon Jalika tey dina nekk si bonheur wala doomam mais niñ ko bàyyi ni mu souffrir ba dee donc loolu lañu ñu xaw la lu quoi donc di jégalu bu baax message bi gudd na lu xew TV merci beaucoup.